final di ko wax te bëgg na lam jàpp na la raw gàddu baa ngi noonu waaye man de Alaaji Njaay yàlla seesee na ko Moussa Faye turam de Cheikh Sarr xamoo tur woon ah Cheikh Sarr booy bi selemene bu caajaay selemene bu caajaay arbitre may ñu ko yaamu xaar dina tàmp ba booy baa koy yaamu bañ na yaamu booy baa koy mboot yaamu daan ko yaamu jël na laamu ja hey bër na laamu ja daan na célébré bu jaajaay hey yaamu woho yaamu hey na Iba Mar hey hey waaw waaw nee na rindi rek yaamu jël na lambu ja yaamu jël na lambu ja laay leela la oho yaamu Dakar